asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h ñu ànd ak yéen ci lépp lu ñel wàllu wérgu yaram te ñu am mbégte di dalal ki nga xamante ne moom mooy Fatou Sow Lo moom nag euh, madame Sow mu ngi nekk travailleur social dañu koy nuyu balaa ñu dugg ci biir waxtaan bi. jërëjëf euh, Olay Matou Olay Matou maa ngi lay nuyu bu baax. di la jaajëfal di kontaan si opportunité bi ma jox tey invité si sa émission. Mhm. waaw maa ngi nu tamit auditeurs yeeg auditrices yëpp. Mhm. waaw di nuyu toute l' équipe de Rewmi FM. Mhm. en passant par la directrice. la directrice madame Sané. monsieur Diallo. ak Ndemba. ñoom mhm. ñëpp maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. Euh, kon euh, madame Sow euh, ñu gis ne nag yaa ngi nekk travailleur social. tey mhm. jii nii est-ce que mën nga ñu wax exactement lan mooy métier wu travailleur social. voilà Ouleymatou jërëjëf kontaan naa trop si laaj bi ma laaj parce que métier travailleur social dafa nekk la nga xamante ne si maanaam nit ñi dañ si amul dégg-dégg bi si war. Mhm. parce que travail social dafa nekk li nga xam ne ci askan wi ñu bari dañ koy jëfee. mais ñun suñ nee décliner suñu profession en tant que travailleur social mooy c'est une euh, liggéey la boo xam ne da nga ko def une formation avec un diplôme et surtout un diplôme d'état parce que fii ci Sénégal mhm. travailleurs sociaux yi dañu am école nationale ñu wax école nationale des travailleurs sociaux spécialisés mhm. foofu la ñuy génne avec le cycle A ou le cycle B mhm. boo demee tamit ci école bu ñuy wax ENDSS école nationale développement sanitaire sociale assistants sociaux yi foofu lañ daan génne mais assistants sociaux yi léegi dañ leen jël sax toftal leen ci ENTSS mooy école nationale des travailleurs sociaux pour gën a mën a dooleel liggéeyu travailleur social. Mhm. liggéeyu travailleur sociale nag boo ko déggee moom day intervenir ci nit ñi maanaam ci seen dundin. Mhm. ci famille yi ci groupe vulnérable yi ba ci collectivité locale yi collectivité mhm. territoriale yi travailleur social bi ciy intervenir te lii nga xamante ne si mooy action lépp mooy li nga xamante ne si mooy accompagner ñi nga xamante ne si dañu nekk si jafe-jafe àdduna wala accompagner ñi nga xamante ne si dañu nekk ci feebar boo xamante ne si bu weesoo wàllum fajum docteur. Mhm. dañu soxla ku leen di waxtaanal di leen dalal di leen delloosil ak ñi nga xam ne bu nekk ci ay rëq-rëq àddina travail social bi day waxtaan ak ñoom di leen tegal ay projet ay projet de vie yoo xamante ne si maanaam si le plan psychosocial. Mm-hmm. daf leen di delloosi maanaam li ñu wax ne da leen leen di insérer wala da leen di réinsérer dans la société. Mm-hmm. dañuy faral di wax uh-huh, allez-y dañuy faral di wax maanaam si gàttal daal si mm-hmm. laa ko mën a résumer peut-être na si biir waxtaan bi dinañ gën a dugg de manière concrète. pour nga gën a mën a comprendre li ma lay wax. voilà parce que dañuy dañuy faral di dégg assistance sociale. daanaka euh, terme boobu sax peut-être moom la nit ñi di gën a miin. kon tey est-ce que am na différence diggante ñaari terme yooyu. la différence n'est pas majeure mm-hmm. mais soo gisee terme assistance sociale da fi jiitu terme travail sociale mais à quelques différence près de module ils mm-hmm. suivent presque la même formation te wax naa la ko sànq depuis deux ans dañ jël assistance sociaux yi nekkoon e s yóbbu leen MTSS e pour lëkkale formation bi léegi la formation du social nekk benn mm-hmm. euh, assistance sociale nag moom la nit ñi gën a xam mais ils font le même travail que le, le travailleur social c'est juste que assistant social moom euh, c'est un concept qui est venu avec la valise du colonisateur parce que tubaab bi ñu fi nekkee mhm. dañu indaale woon ay assistance sociaux ñu nekk woon ci hôpitaux yi nekk ci écoles yi parce que boo gisee euh, maanaam ci réew tubaab bi ak réew bi gën développé mhm. ñoom wàllum sociale mooy nekk base u seen euh, seen seen seen politique lu ma ko mën a waxee mhm. parce que askan bi boo leen di gérer di nga lutter contre la pauvreté di nga fexe ba ñu nekk dans des conditions de vie meilleures ak nu mën a fexe ba potentialiser seeni ressources mhm. donc travail social vraiment moom ci loolu lay agir mhm. donc travail social assistance social c'est la même chose d' accord euh, tey jii nii euh, madame Sow ñu gis ne ñi nga xam ne ñoom liggéey liggéeykatu euh, sociaux maanaam travailleur social. booy mhm. xool ci explication bi nga jox bi nga jot a joxe dafa mel ni. dañuy jouer rôle psychologue. mais au-delà de ça dañuy gunge mhm. nit ki ci ay projet de vie ak yu demee noonu. Mhm. mais tey ñu gis ne euh, culture boobu noonu xaw na fi des tuuti pour nit ñi di dem di mhm. tourner wu vers les travailleurs sociaux euh, lan moo waral loolu. effectivement c'est juste un problème culturel à l'heure matou parce que xam nga si si maanaam si la famille sénégalaise euh, ñu jël rek par exemple rôle bàjjan. mbala di jaay. dafa nekk ay rôles sociaux yoo xam ne c'est tellement important boo amee sa jafe-jafe ngay dem si sa bàjjen wala lu ñuy wax ndayale wala bàyyale nga di nga dem si say aîné daal ñu la ëpp expérience ñu gimbi la mhm. donc comme ni ma la waxee dafa nekk benn métier boo xam te dañ ko importé dafa jugee si tubaab bi fi ñëwoon ci ñoom lañ ko jëlee parce que foofu seen société dafa xaw a individualiste tuuti mhm. donc de sorte que boo amee jafe-jafe ñoom ñoo ëpp ay problème psychologiques Mhm. d' ñoom boo gisee nit ki ni muy amee médecin wala avocat noonu lay amee un psychologue ki koy suivre. Mhm. fii au Sénégal dañuy xaw a jaawale tuuti euh, mbir travailleur sociale ak psychologue. Mhm. c' bien vrai parce que dans la formation de base on fait beaucoup de psychologie. et en dehors de l' aspect psychologique aussi dañuy def euh, accompagnement économique réinsertion tout ça donc xaw na niroo psychologue de sorte que sax fii boo nee travailleur social nit ñi sax psychologue la ñuy gën a kii même boo gisee ci yenn yu bari yu xew ci psychologue yi la ñuy wax. Mhm. en oubliant un peu le travail social et pourtant ils travaillent presque dans les mêmes cellules. Mhm. dans les mêmes comités. mbirum kii su amee maanaam catastrophe genre comme batalo Joola bi mu amee woon. Mhm. ak ba ci wàllum li xew nii tey mbas nii. psychologue yi ak travail sociaux yi ñuy lëkkaloo di jàppale nit ñi di leen gindi di leeral seen xel parce que travail social dafay def beaucoup de sensibilisation il joue le rôle de veille et d' Mhm. sur beaucoup de mhm. Mhm. voilà mu nekk lu am solo tey jii nii euh, donc faatu Sow Lo ñu gis ne tamit euh, ci sunu hôpitaux yi. hôpitaux yi euh, normalement dafa war a am ay travailleurs sociaux yoo xam ne. dañu fay nekk di jàppale di gunge nit ñi parce que tey di nga gis koo xam ne par exemple day ñëw amul xaalis pour faju wala mu daal nekk ci njàkkare mais yéen ñi peut-être di ngeen am lu am solo loo xam ne di ngeen ko jouer ci ci le mais Euh, tey est-ce que travailleurs sociaux yooyu fës nañu ci biir euh, bërëbu fajukaay yi. effectivement effectivement Ouleye Matou. Mhm. boo demee dans les hôpitaux da ngay fay dégg di wax service social. Mhm. service social boo ko déggee à la tête y a un social wala y a un travailleur social. et dama dem en dehors des hôpitaux parce que bu ñu feebar ñëpp ñooy dem hôpital boo demee hôpital ba mu bindal sa kii da ngay génn hôpital. Mhm. ñun on travaille dans des structures qu'on les CPRS. les CPRS. c'est ce qu'on appelle centre de promotion et de réinsertion sociale boo nga xamante ne si c'est un service de de de, de la direction générale de l'action sociale bi nga xamante ne si ministère de la santé de l'action sociale moo ko boot mhm. comme man mi par exemple si sa presse bu may liggéeyee dana gis ñoo xam ne dañuy feebar ñu bind leen euh, lu mel ni scanner xam nga ne scanner dafa cher mhm. ak yeneen rajo wala yenn ordonnance yi amuloo doole donc ñoom dañuy ñëw si ñun moo xam ci biir hôpital bi la nga dem service euh, euh, le service social wala bu dee da kenn hôpital bi nga dem si CPS bi nga ñëw nga seeti social nga ñëw ko sa problème wax ko yow fii sa doole toll mu def ak yow rapport d'enquête sociale. Mhm. ba napp sa doole fu mu toll lu mu njëkk def mooy orienté la parce que am na fi ay structure yoo xamante ne si maanaam loolu moo leen fi tax a jóg te amaana ñee ñëw seen xel xamul lool parce que li ma lay wax nii. ba ci le travail social sax benn citoyen lambda comme yow sax par exemple xëy na mhm. am na lu bari luñ ci xamul lu mën a gindee mhm. en matière d'orientation en matière d'accompagnement loo xamante ne cest ku feebar bu ñëwee service sociale bi ba ñu waxtaan moom ba natt dooleen fi mu toll mhm. ñu xam dañ koy dimbali ci wàllum ñu ni ñu ni lëkkalool maanaam structure sanitaire yi ñuy lëkkalool wala dañ koy dimbali mu dem ci benn organisme bala ONG boo xam te foofu noonu ay way dimbali ay nit ñoo fa nekk. Mm-hmm. donc service social loolu lay jëriñ wala bu am na ay services sociaux yoo xam te si seen budget am na loo xam te si mën nañ ci jël ñu la ci wàllum ordonnance wala jàppale lu wàññi payoor gi dañ koy def service social loolu lay kii boo gisee même bu ko feebar sax. Mm-hmm. parce que yow mi ko yor feebar sax des fois da ngay dem ba nga xam da ngay am beneen feebar bu bokkut ak bële. Mm-hmm. maanaam tu as des troubles euh, psychologiques. psychosociaux da nga sa vie dafay déréglementé. Mhm. donc travail social bi dina la waxtaan a yow delloo si la surtout nag rawatina ñi nga xam ne les en fin de vie euh, genre cancer wala ñi nga xam ne les porteurs du VIH. Mhm. ñooñu mm -hmm. ils plus besoin de l' accompagnement d'un travailleur social. Mhm. donc loolu aussi dama koy leeral. Euh, parce que euh, li tax ñu wax loolu dafa am tey ay jafe-jafe temps yële euh, NTSS nekkoon na ci ay perturbations. ak peut-être ay étudiants ak syndicat bi doon wax ne bon seen réinsertion bi dafa am lu mhm. ci sooxe lu bari fonction publique mu mel ni tey ci côté mhm. recrutement bi y a beaucoup de quoi yu ci am waaw loolu moom dëgg yàlla dañ koy nangu mhm. parce que travailleurs sociaux yi ils sont pas nombreux vraiment seen effectif c'est très réduit ba pare aussi dama ko dolliwaat di wax rek il faut que euh, les les les gouvernants maanaam les autorités ñu gën a approprié wu le rôle du travail social parce que même travail social ulematu dama lay xamal yemul ci wàllum santé mhm. gis nga tey bépp collectivité locale boo fi gis tey jii soxla na un travailleur social mhm. parce que c'est lui le professionnel du social te collectivité territoriale maanaam seen pàcc li ci gën a bëri mooy wàllum social jàppale askan nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci bopp ba di leen jiite dans les dans les par exemple da ngay dem yenn yeneen service da ngay gis ne que chaque service dañu am service social dama service social mais en général. Mhm. benn promotion interne ko fa. a wax dafa am benn politisation. Mhm. <laughs> non mais politisation sax dañu il pense que. Mhm. social moom ñëpp a ko man a def. dëgg la mais ñi ñooy les professionnels du social. ñu suivre formation de base avec des théories profondes ah dem si àll bi. di def ay enquête di def ay stage rural stage urbain duggu xam nga vraiment information boo xam te si wax dëgg yàlla boo dëgërul sax doo ko mën a dékku mhm. donc ñooñu tey ñoo ko yelloon donc il est temps que tamit sociaux yi ñu tas leen dans toutes les structures ñu xaw a mën génn ci sociale yi dugg ci yeneen structures yi ngir jàppale parce que social ulimatu dafa bari sa englobe tout mhm. tu fais une politique sociale tu réussis tout mhm. parce que nit kiy liggéey fi am na njàqare àdduna am na jafe-jafe am na par exemple problème de vie de couple. Mm. même ba ci biir euh, service bi un climat social un peu détérioré dafay wàññi résultat yi donc ba ci tey foofu seen seen seen seen structure yi. pourquoi pas mën ngeen am um, un um service social. pourquoi pas pourquoi pas waaw donc pour te dire que vraiment l' importance du travailleur social. dans le développement social quoi fépp la a feeñe voilà. fépp la mën a feeñe. am na am na solo ñu uh, uh, gis ne quand même euh, travailleurs euh, sociaux yi euh, tey jii ñu ngi ci réew mi ne fi am na ñoo xam ne ñu ngi am mm. liggéey am na ñoo xamante ne malheureusement amuñu liggéey te te te te ñu gis ne peut-être jeunes yi loolu mën na dem ba euh, daal di leen décourager pour ñuy bëgg a embrasser peut-être mhm. euh, ce ce métier là qui est quand même noble euh, tey jii mhm. yow la waaw Oulaymatou loolu mhm. loolu moom dama si war a indi tontu parce que gis nga fi nekk ni loo xam nit ci dañ siy jum ko war a leeral l'État n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi liggéey duudu boo toogee banque se loxo xaar état jox la liggéey. Mhm. di nga yéex am liggéey. Mhm. te macha allah macha allah li may wax nii bu fekkee am na ay travailleurs sociaux yu may dégg. Mhm. wala des sortants de l'INTSS dañ lay xamal ne tey ji bari na ñoo xamante ne si yàkkamte nañoo génn ba benn ONG recruter leen. di leen fay xaalis bu bari. mais nag Sénégal moom dafa nekk ni moom tant que duggoo fonction publique nga yaakaar ni rek. sa xel dalul. mais travailleurs sociaux yi si génn moo xam ñun nekk fonctionnaire sax yenn saa sax ñu ngi jéem benn. <laughs> ONG wala benn xam nga <laughs> benn uh-huh. structure. Uh-huh. pour mu recruter la. Mm. parce que liggéey am na fi. structure yu bari. Mm-hmm. yoo xamante si jàppale wàllum social wàllum xale yi taxawaalu si mbedd mi. Mm-hmm. du état kese moo si agir. Mm-hmm. yaa parce que tey projet de développement yéen da ngeen ci am wàll bu baax. si si si. projet boo gis fii rek soxla na un travailleur social. projet boo gis fii soxla na travailleur social surtout ñi dem si. si si si biir dans les profondeurs c'est-à-dire euh, di ci biir région yi ci biir village dem fi nga xamante ne si vraiment structures sociaux de base dafa xaw a sooxe. Mhm. naka lañ leen di jàppale parce que état dañ ko war a dimbali. donc bu ñu toog rek banque suñu loxo ne état bi nee na boo gisee génn ñu wax ne euh, seen recrutement dafa faible certes le mhm. recrutement faible mais tey jii boo xoolee travail social yi di yi di chômer wax dëgg yàlla bariwul de. Mhm. waaw buñ sañoon nag ñu yokkal ñu euh, lim ci fonction publique ndax booba tamit dina tax ñu gën a am doole. Mhm. mën a baanaam bare lu ñuy euh, euh, revendiquer. Mhm. mën ko mën ko jot parce que tamit euh, maanaam daal nombre bi dina yokk suñu doole tamit. Mhm. dina ñëwaat bu baax ci kanam ci jafe-jafe yi. may fàttali rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moom mooy faatu Sow mu nekk travailleur social. voilà ñu ngi ko doon wax ci ndorteel euh, madam Sow ñu nekk ci jamono ji nga xam ne moom mooy euh, maanaam jamono jox ne mbas dafa wàcc ci àdduna euh, coronavirus lëmbee àdduna sonal ñëpp donc tey Sénégal mu nekk itamit ci riposte bi tey lan mooy place su travailleurs sociaux yi ci ci mi. effectivement Ouleymatou. Mhm. laaj laaj nga laaj bu ma neex. Mhm. les travailleurs sociaux pour ni ma la waxee ils ont déjà été formés pour gérer des situations de crise. Mhm. rawatina nag crise bi nga xamante ne si c'est une crise sanitaire mondiale. Mhm. ñëw ba laal suñu réew. travailleurs sociaux yi ils dans le dispositif. Mhm. de la gestion de la crise sànq wax naa la ko ñuy remercier au passage suñu directrice générale Aram Top nga xamante ne si wax dëgg yàlla boobu ba tey ñu ngi koy dégg si rajo yi ñu koy dégg si télé yi tout le temps ñu ngi liggéey amatuñu samedi amatuñu dimanche amatuñu guddi amatuñu bëccëg. Mhm. la direction générale de l' action sociale bi nga xamante ne direction la bu ministère de la santé mu ngi la santé. lépp luy taxawaayu travailleur social ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy doxee. Mm-hmm. xanaa kañ nag di di ñaan tamit ñu gën a dooleel gën a fësal parce que boo demee dans les dans à la base par exemple au niveau des districts sanitaires foofu pratiquement doo doo ko xaw sentir mais tey boo gisee les gens qui sont confinés. Mm-hmm. dans les hôtels. ils bénéficient de l'accompagnement du travailleur social. Mm -hmm. le travailleur social moom mooy euh, def le lien entre ñoom mhm. de besoin par exemple bu ñu amee lu ñu soxla travail social mooy taxaw parce que bu sa feebar bi dafa fee dafa nekk feebar bo xam ne. Mhm. du wàllum docteur kese moom du wàllum médecine kese. Mhm. y' a beaucoup d' aspects sociaux yi nga xam te si dafa lëkkaloo feebar bi. parce que même su fekkee dañ la sax yow di la testé xamoo ndax am nga ko am nga ko da nga am da nga am ay trouble de stress bi voilà da am benn agressivité booy développé wala benn anxiété buy nekk si yow yaa ngi am jaaxle wala njàqare donc travail social bi mooy waxtaan a yow. Mhm. di la delloo si di dalal sa xel di la xamal ne lii du parce que c'est pas la honte comme ni ñu koy waxee. Mhm. feebar la te sant yàlla Sénégal tamit ñu ngi ci def ay ay am solo ñu ngi wér ñu ngi faju nu ngi wér sante ko yàlla yàlla jëm kanam. amiin euh, te feebar bi jóge fi. mais travail sociaux ñu ngi ciy def un rôle très important. Mhm. parce que en terme de confinement suñ ko waxee dëgg dëgg dëgg. confinement moom du docteur ba moo fay ñëw di faj mhm. le travail social le psychologue mhm. ñoom ñooy leen di mhm. parce que bu ñu tëjee entre quatre murs dafa metti boo fay boo fay yendoo fanaan fa yenduwaat fa fanaan fa xamaa tàmmetu guddeeg bëccëg buñ la jàppalewul mais te sa xel mën naa mën naa dem nga développer trouble de comportement le stress beaucoup de choses Mm-hmm. ba yeneen feebar sax mën na développer wàcc yow donc voilà à travers sociaux yi nag ñoo lay dalal di la kii say soxla bu amee loo soxla di veiller aussi à ce que est ce que fa ñu nekk ndax hôtel yi leen teg est mm-hmm. ñooy dem ceytu loolu ndax dëgg la wala dëgg ñu amélioré la qualité du repas la quantité di leen wutal ay yére yu ñuy sol parce que xam nga si dee infecté wala si ci ci une infection yére yi nga sol sax dañ koy dindi même ay yére sax dañ koy jënd jox leen ko. Mhm. ay alimentaire ay kit sanitaire ay yëpp dañ leen jox ci ay valises dañ koy def. Mhm. jox leen ko donc loolu aussi lu am solo la. Mhm. waaw voilà bu ñu déggee nga nga wax euh, madame madame Sow ñu gis ne tey comme peut-être tey euh, confronté nga ci situation boobu n'est-ce pas. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk confinement jot nga ci am ñoo jot a liggéeyal ak yooyu. waaw man nag très sincèrement amaguma kenn ku ma ci liggéeyal. Mhm. mais daanu réunion. Mhm. Euh, ak sa suñu collègue yi ñuy lëkkalool par exemple euh, seen seen seen cas yi nga xam ne ils sont mhm. ñoom dañ leen di lijjanti par exemple si a un cas qui doit être euh, déplacé vers un hôtel wala bu fekkente ne famille bi am na benn xale bu ñu war a confier benn famille eh, benn xale bu ne famille te moom peut donc loolu travail social moo fi man au niveau de mon district sanitaire mhm. peut-être que le service social foofu ñoom ak buñu foofu cas yu ñu am mhm. euh, ñu ngi koy gérer à l'interne parce que avant tout y a le service social du district mhm. donc peut-être tant que moom mu koy mën a gérer il ne fait pas appel à notre service parce que ñun on est un service externe parce que ñun on fonctionne en termes de district et de zone géographique d'accord Mm. Ah. ñu gis ne tey wàllub euh, euh, société. Euh, mm-hmm. dafa am loo xam ne lu bëri chaque fois peut-être ay mutation yu am ci société yuy waral yenn yi. te loolu mm-hmm. à chaque fois dañ ci indi ay ay jàngat day laaj ay taxaw seetlu. Mm-hmm. dañ ciy dégg très souvent sociologue yi d'ailleurs ñoom ñooy ñoom loolu seen seen discipline la. mais ñàkkul na yéen tey jii en tant que travailleurs sociaux am ngeen ay notion ci ci loolu. te dañ nekk ci quand même société boo xamante ne. Euh, lu bëri daf ñu tënk tey da ngay uh-huh. xool rek li xew jamono ji rassemblement yi ñu tere ko yeneen ak yeneen te ñun dañoo nekk société boo xam ne duggante bi ak génnalante bi saafonte bi uh-huh. yooyu yëpp dafay nekk loo xam ne moom suñuy réalité la ñu xëy-xëy uh-huh. mu daal di loolu yëpp daal di am benn euh, rupture boo xam ne daf ci am su ma ko mënee tuddee noonu euh, tey en tant que travailleur social ban jàngat nga ñu ci mën a àndil surtout tey jii ci côté comportement sociaux yooyu nga xam ne ñun dañ ko am un jour tel rek ñu am rupture bu ci am est-ce que reconstruction bi dina dina est-ce que sa sera comme avant même lii bu jeexee. dëgg la Elimatou joxe nga benn question bu pertinente. Mhm. parce que da nga tudd sax sociologue sociologue travailleurs sociaux dañ bari nañ ay de base yoo xam ne ñoo ko mhm. ni ko waxee c'est un problème de fondement sociologique. Mhm. suñu famille suñu société suñu société sénégalaise. dañuy tàmm saafonte. nuyoonte. Mm-hmm. ba ci joxee loxo sax da ko dafa am benn valeur bu nga ko jox. Mm-hmm. nit moom day joxuma loxo. Mm-hmm. moom xam nga daal di am nun la étiqueté <laughs> xam nga am noo ko gisee. xaw ko ñaawal wala mu war ah, laa. daf maa sewal daf maa sewal joxuma sax loxo. <laughs> xam nga ah. léegi ne tey tey tey ñu bëgg xëy ñu ne ah bu joxe loxo am <laughs> donc tu vois ce que ça mais soo gisee euh, à tout changement de situation changement de comportement dafa war a am te mbas mi boo gisee euh, décision forte yi si état bi jël yi nga xamante ne si dafay laal économie bi international niveau ko tey bu ñu ba ci wàllum joxe leen téye leen seen loxo toog leen seen kër. Mhm. yaakaar naa ne lool mooy li gën a tuuti li nga xamante ne si mooy euh, ay changement yi ñu jël opéré. te mhm. pourtant loolu noonu a am solo ci li nga xamante si mooy dakkal. Mhm. Euh, law jàngoro gi. parce que dañ ne bu leen joxeeti loxo toog leen seen kër. bu leen génneeti bu leen seeteeti kenn. Mhm. ngénte amatul takk amatul dëj sax amatul. Mhm, mhm. ah dem ba tëj jumaa yi tëj tous les lieux de culte église messe amatul donc loolu ça peut faire mal. mais boo xoolee mbas mi tey li mu mën a faagaagal si doomu aadama ak li mën a faagaagal si économie bi. donc lii tey jii dama naan couper le mal à la racine mooy loolu. na ñëpp toog seen kër nañu ci téye seen loxo bu jaxet wax nañu respecter les distances. association sociale. Mhm. nit ñi génn que pour l' essentiel loo xam te c'est tant que c'est pas vital ñu génn. Mhm. gis naa ni que fan yi dëkk bi jambax jambax ci dafa xaw a commencé mel ne lu commencé. di jógaat na jógaat. Mhm. waaw il faut que ñu wax ci tuuti. na nit ci toog te man cas communautaire yi tiital nañ ma. parce que on parlait de cas importé léegi cas importé macha allah on en parle plus parce que on a fermé toutes les mais ngir yàlla cas communautaire yi di law nañ xam ne que c'est c' le grand danger na nit ñi toog waaw. Mhm. te loolu moom dama si interpellé vraiment autorité yi parce que fu nekk nii maanaam gis nga bañ njëkkee def couvre-feu bi ñuy dóore ñu ne war a ñëw dóore waaye dama ne. ab mhm. xëbala yar bu njëkk ba day dal. Mhm. day saf dañoo war a jëlaat nag beneen mesure na nit ñi toog. na service de l'ordre bi wàcc si dëkk bi en plein jour. na ñuy décourager les gens qui sortent à ne plus sortir même si on les punit pas les décourage. doxee. Mm-hmm. parce que en France wala en Europe dañu tegoon ay ay daan ay ay alamaan. Mm-hmm. fii koo fi alamaan du la fay. te mm-hmm. mënoo jàpp ñëpp tëj leen. mais nañ leen di par la répression la coercition. ku génn policier taxaw foo jëm looy doxi looy nii. bu yàggee alkaati lañu ragal. boo ko defee yàggee ñëpp dañ te tout le temps dañuy gis ne y a a parce que quand même. y a des ñoo xamante ne mënoo ba ñu toog. mënoo fexe ba ñu toog. et, et c'est difficile quand même c'est difficile de rester sur place. Mhm. c'est difficile parce de la presse dañuy xëy le le matin teint quatre heures du matin cinq heures. mais da ngay ñoo xamante ne dañuy dox di dem. amuñu oto amuñu oto sax bu leen di yóbbu. mais quand même ñoom mhm. boobu laa la ñu mënul départir. dañuy xëy wuti. Mhm. bari na ci ñoo xam dañuy xëy wuti. mais vraiment ah euh, téye sa bopp pour quelques jours de. ah moo gën. feebar fi dee fi wala lawal fi jàngoro ji parce que boo fi lawalee jàngoro ji tamit di nga gàddu ak mm-hmm. dañoo war a xool mm-hmm. entre le mal et le pire mm-hmm. qu'est-ce qu'on choisit waaw ñu jéem a toog gis pour un temps te virus bi ñëpp a ngi am yaakaar ne virus bi léegi mu dem yàlla na ko fi suñu borom jële mais ñun ñoo ciy jàpp fi mu ne ni c'est un combat communautaire l'état lu mu war a def macha allah boobu ba tey ñu ngi communiquer ñu ngi jël ay décisions fortes nee nañ toog leen toog leen toog leen nit ñi nañu toog ngir yàlla. Mhm. nañu toog service yu bari arrêté nañ léegi ay service minimum ngay dégg ah te sur le plan économique c'est c'est c'est vraiment c'est vraiment grave quoi. Mhm. économie bi taxaw na secteur informel bi taxaw na. lépp taxaw na. Mhm. mais ñu xam ne lii moo ko waral loolu dinañ ci ñëw côté secteur informel madame Sow mais. tey jii est-ce que yaakaar nga ne bu situation bi passé na gaaw passé ñu ngi koy ñaan. tey mhm. euh, waat loxo yeeg yooyu est-ce que du am benn blocage bu ci am après. non xam nekk nii. Hmm. bu ñu jógee si lii nag dañuy bën dund geneen dund gu bees. Mhm. bu ñu changé comportement. dafa am mhm. lu ñu ci war a jàngat. raxasu beeg yooyu kon. waaw mun nañ ne peut-être un mal pour un bien benn côté bi. voilà. exactement. un mal pour un bien. parce que dañuy changé maanaam step lay nekk rek niveau. léegi nag jugee nañ fii day day un niveau beaucoup plus élevé. gën a yi. Mm-hmm. gën a xoolaat cet gi. Mm-hmm. gën a xoolaat jaxasoo gi. Mm-hmm. xoolaat yu bari yoo xamante si maanaam amaluñu woon solo wala mu ñu doon gaañ. te ubbuñu woon suñu bët mais fa nekk mbas ne ñëw ubbi bët yi. parce que madame Sow comme ni ñu koy waxee ah. euh, des fois euh, yàlla suñu borom buy defar day mel ni ku yàq. Euh, maa ngi gis ay études yu naan même côté environnemental côté nature bi sax dafa dafa dundaat. dafa dundaat. waa yenn scientifique yi lu ñu wax mooy la couche d'ozone vraiment a beaucoup respiré. pollution de wàññi na. i mhm. ah, y a eu de régénérescence un peu partout. sur le mhm. plan biologique. Mhm. vraiment sur le plan environnemental. il fallait qu'on s'arrête à un certain moment. donc yàlla est-ce que yàlla noonu la doon defar. parce que tantôt on parle de réchauffement climatique. on parle de degré de pollution. ah doyoon na waar de. Mhm. doyoon na waar de ci tiitoon nañu. Mhm. man am naa benn doomu asthmatique mais tout le temps euh, xam nga. Mhm. Euh, genre la la pollution est forte rek. Euh, des crises mais macha allah tey tey scientifique yi lu ñu wax mooy. la couche d'ozone s'est beaucoup bonifiée de cet apaisement là. xam dara yëngatu il y a de pollution. Mhm. donc tu vois donc noonu ñu ko ca jàngate jàmbat ko nag noonu lañ ko war a xoolaatee ci kër yi. Mhm. ba ci sax damay dem si beneen aspect bu gën a profond mooy tey jii couvre-feu bi lu fi indi mooy toogandoo sa njaboot. Mhm. lekk ndox sa njaboot jige sa njaboot waxtaan ndox sa njaboot. tey ñu wax ko. ça réconforte beaucoup de ménages. defar na ay defar na lu bari. gën a jige sa doom gën a jige sa soxna wala sa borom kër. Ah, am na solo loolu dafa am solo te na ci bàyyi xel. ba ci dal ñu dal gi sax tey jii suñu borom mun mm-hmm. na ni dañu war fàttali boppam. Mm-hmm. ndax tey ji dal bu ku ne yaa ngay ñaan. loo xamante ne adduna bi yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul prince bàyyiwul ministre nit ñi demoon nañ ba yaakaar na ne sax. Mm-hmm. Euh, amuñu jot. te tey ku ne yaa ngi ëlbatikuwaat di tuub di jéggalu suñu borom. di xoolaat sa bopp di woor jéggalu leen ah leen loxo yàlla suñu borom nga xam ne. yàlla rek mooy Karim. moom rek a fi ne. waaw euh, voilà euh, voilà madame Sow euh, tey ñu gis ne aussi y beaucoup de famille yoo xam ne ils sont dans dans quand même le désarroi wax nañ ñu. ne ñu ngi séddale lekk yeeg yooyu. mais loolu mhm. bon c'est en cours. Mhm. léegi secteur informel bi ñi nga xam ne ñëpp toog nañu. amuñu mhm. ñi nga xam ne dañuy dem génn léegi uti léegi duggal ci njaboot gi génnaat di vivre au jour le jour moo am benn cassure rupture boo xam ne jékki-jékki na am tey peut-être en tant que travailleur social ñooñu lan may war a nekk tey ñooñu seen seen vécu waaw Oulématou wax nga ko yaayu cassure vraiment et c'est très dur parce que Sénégal dafa bari góorgóorlu mhm. xëy daan doole indi njaboot gi et malheureusement aussi on ne s'attend jamais à des de crise pareilles nit ñi waajaluñ ko woon. Mhm. fooguñu ko benn yoon. kon daanaan kon tey jii maanaam boo ñaar ñaari fan ñetti fan génno rek euh, jafe-jafe day daal di juddu. Mhm. mais aussi gis na ni que mbas mi euh, maanaam yëkkati na les dynamiques de solidarité jàppalante bi. la famille sénégalaise elle est solidaire mhm. même fekkee mënul loo jàppale ñëpp parce que xëy parce que tamit mbas mi moo fi indi une crise sanitaire une crise économique. donc métti na. métti na te moo mu loolu moo tax nga gis état bi du jug ci wàllum dimbali dund bi parce que instant bi dund bi mooy li nga xam ne moom primordial que mhm. les collectivités territoriales aussi ñu ngi joxe si yenn maire yi yaa ngi gis ñu joxe ay dund macha allah yu am solo. Mhm. pour jàppale ñoo nga xam ne naan xëy di wuti lu ñu dundale seen njaboot. du ko gisee état bi mu wax ba ci wàllum location yi wàllum prêt bancaire yi yooyu yëpp ñu ci ay woyafal. Mhm. parce que xam na ne vraiment cassure bi dafa dafa métti dafa bette. donc loolu moom dañ koy euh, mettitlu di ko massawu aussi ñi nga xam te si yenn secteur informel yi nga xam ne seen activité dafa taxaw nga mhm. gis ne que recette zéro seen employé sax mënuñ leen a fay et là c'est c'est c'est très difficile mhm, mais c'est une situation de crise c'est une situation de crise donc euh, il faut il faut la gérer o mhm. on est de la gérer te tamit ñuy gën a ñaax tamit nit ñi ñu gën a rapproché wu des services sociaux des travailleurs sociaux indi ay leeral parce que nit ki mën nga nekk sa àdduna wala nekk sa am a jàppale aussi bañ na bàyyi woo parce que jàpp a ne mënal la sa bopp yaa ngi dem yaa ngi mm-hmm. mais ah, tey jii bari na fi loo xam te dañ ko pour jàppale mm-hmm. ñi nga xam dañ ne lañ des situations Mhm. wala de situation de mhm. moo tax tey jii euh, yéen travailleurs sociaux yi da ngeen am solo torop parce que waaw ci début bi ñuy euh, wax affaire aide alimentaire beeg euh, affaire courant beeg yooyu dañ doon mhm. wax ni Dakar Thiès ak yooyu duñ ci bokk ñu gis ne booy xool sociologiquement tey c'est pas parce que ne ñi nekk ci zone rurale rek ñooñu la daan néew gi doole ne tey am na fii dakaar ñoo xamante ne ñu ngi nekk ci ay quartier mais quand même la pauvreté fa la gën a sax méttiwee. bien sûr. Mhm. dëgg parce que xam nga nit ci nit ki dañu am yoo xam ne ci sutura rek la ñuy dundee. Mhm. mën nga fekk nit sax mu dëkk maanaam dëkkal ko ci benn kër goo xam tubaarkàlla macha allah boo duggee da nga ne fi dara nekk fi. fekk na la ñuy dund ñoom. Mhm, xamuñu ko sax sax bi moo fi moo fi bari. dakaar ay Thiès ak yooyu c'est des grands centres urbains mais la pauvreté elle est là. elle et dans tous les quartiers. donc je pense que loolu aussi euh, rectifier nañ ko. Mm-hmm. waaw mm-hmm. léegi moom euh, dinañ ko dimbal dinañ ko jox ñëpp yi ko yellool. Mm-hmm. te damay dellusiwaat foofu rôle du travail social. en terme de ciblage. gis nga ciblage dafa am solo ci lépp loo gis mais jël affaire bi politiser ko tamit loolu ñaanu ko yàlla te yaakaar na ne xëy na du demee noonu. parce que am na ñu koy yellool am na ñu xam ne yellooluñ ko am na ñoo xam ne amaana mën nañ génne sax seen poche sax. dimbale quartier ba ñu dëkk wala néew ji ba ñu dendal kër. Mhm. donc nañ xool bu baax tamit ci yan loxo lañ koy teg. Mhm. loolu tamit lu am solo la. lu am solo la te aussi surtout euh, euh, ñu bañ a aussi bu ñuy jox nit ki. ñu mhm. enlever waale sa dignité maanaam tu donnes à la personne telle chose. et de l'autre main tu lui prends sa dignité en fait maanaam wonewu bi ngistal bi. di joxe di ko politisé comme ni nga ko waxee. ak di ko di leen wone télé di leen photo. yooyu rafetul. rafetul ba te boo gisee ñoo xam te loolu na seen sax sax mayu leen sax ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy si si loolu. parce que amaana xaar ba nit ki di la tàllal sax loxo di la ñaan sax. yaa ngi di dignitéem. te am na ñoo xam te si ñu toog de wax dëgg yàlla lañ doon dund ci biir sutura le travailleur sociale bu defee moom entretien mu nga mel ni ku jàkkaarloog sa médecin bi lay faj. nga nga nga confessé wax wax li nga xamante ne si moo nekk sa biir mu circonscrire ko dans un rapport d'enquête sociale je pense que xëy na loolu mënuñu ko dajal ci ñëpp. Mhm. mais loolu moo nekkoon la bonne formule te aussi ñu xam ne action sociale am na une bonne base de données. Mhm. boo xamante ne si tey euh, la vulnérabilité foofu lañ koy dundee parce que ñu ngi wax affaire RNU mooy le régime national unique pour les mhm. bourses de sécurité familiale dëgg ñooñu ci ñooñu am nañu ko yelloo mais ñëpp xam na ne RNU bi tamit amoon na ay jafe-jafe. ci mm-hmm. wàllum ciblage bi. amoon na entre temps beaucoup de politisation. Mm-hmm. voilà lu muy bañ a tudd te nga ko rek mooy loolu. Mm-hmm. Euh, amoon na beaucoup de couacs ñi nga xamante si vraiment yelloo ko la nga dugg si benn kër tànn fa cinq cinq cinq personnes ku ne nga attribué attribué ko bourse par pour des questions de yaama neex. loolu aussi bu ñu bëggee basé wu joxe dund bi tamit dina xaw a dina xaw a sooxe. waaw ñu gën si bàyyi xel. voilà mu nekk lu am solo ba tey rek nga ni yéen ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM madame Sow ñu gis ne yéen travailleurs sociaux yi da ngeen am journée. Euh, bu mhm. mel ni yéen communauté internationale encore une fois dafa am cër bu mag boo xam ne jox na leen ko. ba tax mhm. na 21 mars. Euh, moom mooy seen seen journée mondiale. Euh, tey jii est-ce que Sénégal ñu ngi taxawal journée boobu daal comme ni mu waree. waaw waaw Ouleymatou ñu ngi koy taxawal bu baax. Mhm. boo gisee sax ren dafa tombeek mbas mi mais dafa fekkoon ñu programme woon ay activité parce que à l'instar de la communauté internationale la journée du travail social dañ koy célébrer partout mhm. pour fësal li nga xamante si moom la travail social di def vraiment ci wàllum développement sociale mhm. et beaucoup d'autres choses ren jii amoon na ay activités yu am solo mais yu ñu mujj jëlee yëpp ànd si accompagnement bi. Mhm. pour euh, euh, euh, kii yi xam te si dañu nekk en confinement ak situation de crise bi nga xam ne ci la mhm. mais Sénégal mu ngi koy doxal. Mhm. waaw chaque année dañ koy doxal. dañuy tenir ay conférences à l'ENTSS dañuy tenir ay panel des activités def yenn bu am solo bu ma ko sax daaw daaw da pa pa bi parce que amul bële. ñu ngi ko defoon fii place du souvenir africain. Mhm. foofu lañ ko defee woon invité les gens ñu jóge délégation jóge si région yi ñëw mhm. ñëpp ñu saafonte xamante gën a jàppalante gën a dooleelante mhm. waaw voilà euh, tey jii aussi euh, ñu gis ne am na beneen problématique bu am ci réew mi mooy les enfants talibés loolu moom fléau la boo xam ne moom vraiment adduna bi yëpp dem na ba daal loolu ça fait partie du décor sénégalais mu nekk lu doy wax ay tout temps di taxawaalu ci mbedd mi def nañ ci def ay effort quand même bi et mais gis nañ ne ba tey ça ça bloque daal tey travailleurs sociaux yi tey lan lañ mën a indi comme apport ci cette lancinante question de des talibés euh, dëgg la Oulimata li nga wax noonu c'est problématique boo xam ne si vraiment dafa dafa dafa jaaxale te dafa jéggi dayoo mhm. te soo gisee nekkul ne travailleurs sociaux kese ñoo nekk dans ce combat là. Mhm. il plusieurs acteurs yoo xamante ne ñu ngi ci combat bi même des des des des organismes internationaux donc ñëpp ñu ngi ci combat bi pour le retrait des enfants boo gisee euh, euh, Sénégal comme ni nga ko waxee dafa am ay réalité culturelle yu fi am. Mhm. xam nga dañ fi décrété woon ñu ne que on interdiction de la mendicité. Mhm. dans tous les pays ba Sénégal ratifié ko. mais tey dafa am yeneen force yoo xamante ne ñoo fi nekk. yoo xam te si bu boobaa ñoo jug wax ci mm-hmm. te coow li bari woon na mm-hmm. si tu te rappelles coow li bari woon na yalwaan yal saraxe ci suñu culture la bokk mm-hmm. dem daara ci suñu culture la bokk nangam ak nangam coow li xaw a bari loolu dem ba am benn relâchement mais tey boo xoolee day pays frontaliers yi ak yeneen pays yoo xam te si ñoom ils en ont profité pour éradiquer la mendicité pour éradiquer euh, euh, les enfants dans la rue boo xoolee réew yooyu bari na ñoo xam ñu ngi dawee seen réew ñëw fii di fi di fi yalwaan mais gis nga maa xamal à partir de cette situation de crise sanitaire bi ñu dund nii. Mhm. bu ñu fi jógee beaucoup de changer. Mhm. parce que boo gisee état bi léegi mu ngi def la modernisation des daara. Mhm. di leen appuyer pour que xale yi jàng ñu toog ci daara yi mu nekk un régime internat boo xam te si état daf ciy def dooleem. travail sociaux aussi ñu ngi ciy ci retour en famille bi da nga gis benn xale ante ko waxtaan ak moom bu moom lépp teg ko ay structure ci ay loxo di yalwaan di yónnee njabootam. Mm-hmm. te loolu dafay am donc loolu tamit nekk na combat boo xam si ñu ngi ci di ko mën a te on ne lâche pas yeneen ministères yi ak yeneen structures yi nga xam ne dañoo implanté wu pour jàppale ñu si loolu ah, la direction de la protection de l' enfance yooyu yëpp ñu ngi ci di ci xeex d'arrache-pied. Mm-hmm. te mu ngi am ay avancé ndànk ndànk te ñu ngi ñaan yàlla ñu ci dem seen xel ubbeeku si loolu. Mm-hmm. ngir yàlla kuy jur sa doom tamit nga ko wala nga teg ko ci ay loxo yu wott bañ ko bàyyi ci xale mbedd bi. muy muy muy taxawaalu. Mhm. parce que xale bi taxawaalu si mbedd mi ëllëg ah su màggee tamit anam yi muy nekk tamit du de. Mhm, mhm. waaw loolu daal mooy li nga xamante si ñu ci interpellé. am na solo waaw am na solo mu am aussi beneen euh, flé euh, fléau mooy wàllu euh, drogue bi. donc drogue bi tamit ci jamono yi def na aussi tollé. parce que quand ñu gis ne euh, ñoo xam ne dañ naan ay borom barke comme ni ko gars yi di waxee dans le langage commu euh, populaire. bo uh-huh. doomu borom barke ak yooyu. mu am ci uh-huh. ba maanaam ma maara deytaali am ci am ku ci génn àdduna yooyu. drogue tamit euh, mu nekk mbir moo xam ne da mu ngi daw bu baax ci jeunes yi loolu uh-huh. aussi nekk lu xaw a doy waax tamit. waaw nekk lu doy waar. parce que drogue dafa nekk loo xam ne c'est un danger. et malheureusement ki koy utiliser xam ne c'est danger pour sa vie. Mm-hmm. mais dafa nekk genre vice. Mm-hmm. te boo si yàggee da nga dem ba da am dépendance. Mm-hmm. donc euh, loolu moom dafa am ay centre désintoxication détoxication yoo xamante si ñoom ñoo leen di jàppale pour ñu bàyyi loolu. boo demee ba nga xamante si drogue bi dafa dem ba marginalisé la travail social bi tamit li mu mën mooy accompagner la pour sa réinsertion sociale. nga nekkaat nit koo xamante si di nga mën a jaxasoo ak askan wi di dund dund bu normal. te kenn du la stigmatiser travail social moom loolu moo si rôle am joue le de réinsertion sociale mais drogue moom boo demee ba mu na sox ci sa yaram ba nga am ci dépendance am na ci wàllum docteur ñoo xam te si ñoom ñoo lay faj ba drogue boobu la mu doon def sa yaram mu bàyyi ko bu ko demee ba bàyyi ko nag en matière de réinsertion sociale la le travail social il a un rôle à Mhm. ñeneen ñi nga xam ne aussi soxla nañu euh, réinsertion sociale mooy ñu nekk ci casso yi ci prison yi. waaw ñoom tamit euh, mu am lu so lu am solo loo xam ne travailleurs sociaux je pense que dinañ ko war a mën a def. ci seen réinsertion. waaw euh, bon en matière de vie carcérale honnêtement xëy na loolu sax waruma ci que dans y a le service social. Mhm. boo gisee am nga xam ci prison yi dañ fay jàngee ay métiers. Mhm. mais boo xoolee tamit fii tamit prison yi effectif bi jéggi na dayoo. Mhm. bugguma ci sori trop. Mhm. tamit euh, am na fi nga xam te ne place war a a yem. Mhm. mais am na ñoo xam boo jugee ci prison dañuy seen vie dafay basculer. la aussi autant chez le psychologue chez le travailleur social boo demee si moom waxtaan ak moom am na lu mu la war a mën a dimbalee waxtaan. te loolu si la euh, nga defaat sa projet de vie réaménager sa vie ba loolu la teqaloon ba nga dugg sa kaso ba doo sa duggaat. maanaam da lay tegaat rek si yoon. mais mais malheureusement nag dans nos prisons am na ñoo xam ne génn nañ tey delloo nañ suba. Mhm. kenn xamul lool nag lu ko waral. Mhm. lu yéeme la daal. lu yéeme la. voilà euh, peut-être dernière euh, question bi bi nga xam ne moom ci la ñuy ñëw. moom mooy peut-être euh, tey ñu gis ne de plus en plus daal peut-être ci mhm. situation bi nii sax xaw na calmé wu un mais tey ñu xaw a génn violence yi bëri na agression yi surtout violation faite aux femmes ak yeneen ak yeneen yoo xam ne muy gangréner la société Mhm. Mhm. Mhm. waaw loolu dinaa si wax tuuti maanaam surtout si wàllum euh, euh, violence faite aux femmes. c'est pas que je suis féministe. mais euh, dañu war a am benn gis-gis bu ñuy bu ñuy bu ñuy xoolee suñu maanaam jigéen ñi. parce que tout le temps rek y a un problème culturel qui à la base. la femme soumise dëgg la ñu roy ci soxna jaara man roy ci man am ay références dëgg la. mais aussi société bi dafa demee noo xamante ne tey jii da nga kër boo xam te si tous ces problèmes du monde teg na ko soxna samay sama samay sama sama ko yàlla booleel. Mhm. bu njaboot bi jooyee sax daa mel ni soxna si moo tax njaboot bi jooyee bu njaboot bi am ñoo xam seen doom bu feebaree sax. Mhm. ñu ñu yuuxu seen jabar. Mhm. bu nu wutee ñàkk ba ñëw yuuxu seen jabar. mais jigéen sa c'est ton conjoint c'est partenaire donc ci violence faite aux femmes surtout dans les familles et dans la vie conjugale. loolu dañ si ñaax euh, way dencante yi ñu góor ni ñu yërëm jigéen mm-hmm. boo xoolee aussi ci beneen aspect temps yi duñ gis ne viol yi ak yooyu mm-hmm. yooyu yëpp c'est des problèmes sociaux c'est des déréglementations yoo xamante ne dafa nekk ci société bi mm-hmm. parce que y a beaucoup de gens qui sont marginalisés qui vivent une vie hors de la société hors norme donc loolu koy xool en terme d'insertion et de réinsertion sociale dafa bari liggéey buñ ci war a def il y a beaucoup de gens yoo xam par marginalisation la dañuy am yenn violence yi. Mm-hmm. mooy su ma wax rek ñu ngi ni rek ñu tëj la entre quatre murs da ngay dem ba da ngay développer agressivité développer violence. Mm-hmm. donc nit ki da nga war di ubbeeku de plus en plus ñu gën a xam ne que travail social bi le psychologue il est là pour ça. Mm-hmm. nit ki bu amee jafe-jafe comme bu ñu amee feebar ni ñuy demee si docteur noonu war a mën a demee si travail social wala psychologue bi mu jàppale leen. accompagner leen ba yenn dérives waaw voilà d'ailleurs foofu sax maa ngi ci bëggoon ñëw tey jii di nga gis ku am problème fay psychologue uh-huh. demande de service psychologue personnel uh-huh. mu uh-huh. jàppale ko kon tey c'est possible nga am peut-être problème bu boo bëgg lijjanti nga paye les service d'un travailleur social en tant que particulier mu jàppale la mais il y a mm-hmm. de promotion et de réinsertion sociale mm-hmm. ñi nga xam te si dañ leen implanté dans les zones géographiques tey boo fa demee y un travailleur social mm-hmm. waxtaan ak yow tu n'as même pas besoin de payer. Mmh. peut-être am na ñi nga niveau de vie na fa ils ont un psychologue. fii je connais des familles ici à Dakar yoo xamante ne dañoo am seen psychologue. Mm-hmm. ñu waxtaan ak ñoom ce qu'on appelle les familles asociales ñi nga xam ne seen famille ñoom ni ñuy dundee dafa xaw a xaw a wuute tuuti ak euh, la norme. Mm-hmm. ñooñu waaw donc ñooñu am nañ psychologue bu fekkee seen doole may na leen ko. les tests de bu la commencé ce qu'on appelle les CPRS les centres de promotion de réinsertion sociale. boo fa demee man genre fois ay nit ñoo xam te si dañuy ñëw waxtaan dama am jafe-jafe man ak sama borom kër mënuñu déggoo wala man daal liggéey bu may dugg mu yàqu nii nii naa et cetera xam nga. ñu teg ko xelal ko accompagner ko. et cetera te loolu du nekk sax xaalis boo yëkkati di ko jox wala doo ci mais duñ ko dimbali. di naan teg ko ci axe. comme ni ko xale yi di waxee. waxtaan ak moom ko ci temps daal. waaw tegaat ko ci temps <laughs> loolu la langage xale yi <laughs> donc loolu aussi dafa am solo parce que ndeysaan xel xel xel lu ko lu ko lu ko lënt dafa dafa dafa yomb waaw lu ko muur dafa gaaw mm, mm. donc travail social da day ubbi sax xel mm-hmm. wan la ay piste mm-hmm. ànd ak yow ci li choisir parce que ñun chez nous on ne parle pas de patient on parle de client mm -hmm. la personne qui vient te voir c'est un client mm-hmm. donc da négocier ak moom li nga xamante ne si nga ko bëgg a teg Mhm. bu dee le médecin il te prescrit une ordonnance. Mhm. sans te dire ndax bëgg nga naan bëgg nga naan lii à défaut que ndax am nga allergie wala kii. Mhm. mais chez on négocie le contrat avec le client di ko accompagner di ko di xoolaat di ko xoolaat ba mu tegu ci temps. c'est ça qu'on appelle l'accompagnement social. d'accord. waaw voilà egsi ci njeexitalu émission bi euh, madame Sow ñu may la nga tàggatoo. ak mbokki auditeurs yi ak peut-être benn plaidoyer boy joxe wala sensibilisation. effectivement Ouleymatou kontaan naa. Mhm. li ma permettre ma mën a exprimer wu. di ñaan yàlla auditeurs yi ko déglu tamit euh, yàlla na nekk loo xamante ne ci dafay am si ay ay njeexital am solo. Mhm. donc du ma mën a terminer euh, sans pour autant ma wax si Covid bi. Mhm. comme ni ko waxoon sànq di vraiment di encourager di remercier. Euh, le ministre de la santé et toutes les autorités. Mhm. ci taxawaay yi taxaw ci wàllum euh, crise bi. di gën a ñaax askan bi ñuy euh, ñuy respecter les gestes barrières yi ñu leen wax wàllum raxasinu wàllum ñàkk joxe la wàllum toog gi. Mhm. ak lépp loo xam ne si ñu ngi koy jox rek kilifa diine yëpp ku ne yaa ngi ciy wax. Mhm. gën a ñaax askan wi ni xam ne lii c'est un combat boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te buñ jugee ci lii ñaan yàlla mbas ñu jëlee ko yàlla jëlee ko fi ñu jëmaat ci beneen. Euh, dund gu gën a gën a neex. Mhm. affaire yi ubbeeku. Mhm. maanaam lépp fleurir mûrir. Mhm. Euh, ñu jafe ñu jariñu ci. le plaidoyer que je vais faire nag c'est à l'endroit des des collègues travailleurs sociaux. mooy que dañuy ñaan les autorités ñu gën a dooleel travailleurs sociaux yi. parce que le travail social il a un grand rôle à jouer dans la société. dans le développement social sanitaire il a un rôle très important. ñu gën leen dooleel en terme de formation di ñi nga xamante si tamit amaguñu liggéey ñu ñaan euh, tamit état bi mu yokk niveau de recrutement bi dans la fonction publique même si il n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi di gën a ñaax aussi travailleurs sociaux yi tamit ñuy fësal li ñuy def mm-hmm. ñi gën a wane seen njëriñ ba nit ñi gën leen a xam mm-hmm. di la remercier yow tamit Ouleymatou vraiment di la mm-hmm. doon remercier di leen encourager waa Rewmi FM yéen a ngi seen tànk bu baax. Mhm. seen émission yi am na solo. Mm, donc euh, di mujjantal rek mooy di ñaan yàlla. mu jële fi coronavirus. amiin amiin en tout cas ñu lay remercier bu baax a baax madame Sow Fatou ñu amoon mbégte bu baax a baax euh, di euh, waxtaan ak yow di la jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. voilà di remercier ñi nga xamante ne ñëpp jàpp nañu ci émission bi di la remercier encore une fois bu baax. di nuyu aussi sa collègue yëpp yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllub travail social mu nekk lu am solo ngeen nekk au service de la nation ñu lay jaajëfal encore une fois di jaajëfal également auditeur yi ñu doon déglu ci la 97.5 Rewmi FM euh, ñu leen di dig daje vendredi prochain incha allah 18 heures jàpp 19 heures mun ngeen déglu émission bi euh, bu weesoo ci rajo bi ci point www.rewmi.com wala ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi euh, officiel 97.5 Rewmi FM matu Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfal bu baax.